maintenant beneen mbir mi c'est la déclaration moi je pense que c'est par la déclaration du directeur général du port c'est la déclaration de nom politique. ok pour ñu def différence bi. waaw parce que man du def ni ñoom ñoom daal ñoo def différence bi man damay def différence bi def xàjj ak seen bi. parce que mm. directeur général du tenir propos yooyu. ok politique mooy tenir propos yooyu. ci mm-hmm. benn activité politique. Mm-hmm. mais li ma ci gis mooy homme politique boobu warul nekk juge. bay traité de nit de détournement de milliards wala nangam sangam. Mhm. n'est-ce pas du moom moo war a wax ni. Euh, euh, des opposants milliardaires des opposants milliardaires. parce que li muy wax amu ci benn benn benn benn firndeel. benn mhm. cëslaay. donc il est en d'accuser le pouvoir bi nga xam ne moom moo fi nekkoon de gens yoo xamante ni dañu def naka su noonu alalu Sénégal du ñoom ñoo ko war a wax justice moo ko war a wax. Mhm. donte ay rapport Cour des comptes génn na. c'est au c'est tribunal de dire que kii moo def détournement de deniers publics wala kii deful détournement de deniers publics ñun kenn ci ñun dañu war a wax présomption wala présumé. présumé n'est-ce pas donc Waly Diouf Bodian li mu wax déclaration politique la. ok politique la war a am. Mm. parce que aussi ci déclaration politique dafa am lu ñu jaayoon ñoom ci déclaration politique mooy. assemblée nationale su ñu bëggee nit ñi liggéey normalement warul ñu am majo amul kenn ku war a am majorité confortable mhm. mais moom nee na mënoo diriger ak vingt cinq euh, députés da nga war a am majorité confortable donc on va tout droit c'est-à-dire comme ni Atepa defoon ci mbirum littoral bi moom la Waly Diouf Bodian def ci mbirum élection législative bi moo naam il est en train de nous annoncer qu'on va tout droit des élections anticipées et vers la dissolution de l'Assemblée nationale mi ngi ñuy annoncé qu'on va tout droit vers des procès que ñoom du ñu nangu di diriger pays bi avec des opposants milliardaires mooy y aura des traques am na ay nit yu ñuy poursuivre pour yóbbu leen justice parce que jàpp nañ ni ñooñu dañoo def naka su dul noonu moom homme politique bi moo ko wax. Mm-hmm. donc moom homme politique bi ñi mu ko wax ñooñu dinañ apporter les réponses politiques par rapport à la sortie de l'homme politique. moo tax ma ne la damay def différence entre la communication du directeur général et la communication c'est vrai jour passation de service bi il a problème avec sa communication parce que jour passation de service bi man gis naa sobriété partout dans les passation de service ba mu des moom. Hmm. ba mu des bosam. parce que bosam ba bëri woon na xawaare bëri woon na tàccu bëri woon na déclaration politique. parce que foofu nu mu xumbee woon yeneen passation de service yi. c'était c'était trop trop trop trop sobre peut position bi mu occupé dans le parti la moo tax mu mu am xumbaay parce que il a parlé des des de sécurité de Pastef il a parlé de pas mal de choses sur mais foofu euh, jàpp naa ni peut-être euh, rupture bi ñu doon wax ci loolu amu ci. maintenant sur les prix des denrées donte man am naa lu ma ci gëm am naa lu ma gëm sur les sur la baisse des denrées nangam sangam mais bu fi kenn taxaw di ko layal biir campagne électorale. lañ ñu ne Macky Sall mënul Macky Sall dafa cuune yërëmul askanu Sénégal ñun suñu faloo ñaari weer ñu wàññi njëgi ñaari weer ñu wàññi njëgi njëgu diwlin bi njëgu ceeb bi njëgu leneen vidéo baa ngi circulé du dëgg démb on dit que dinañ wàññi mais il faut ñu def lii je suis d'accord sur la souveraineté alimentaire su ñu bëggee régler la ñuy war a régler dañu war a dem régler moo tax dans les déclarations d'avant dafa am loo xamante ni ñoom dañ ko jaayoon askanu Sénégal parce que doyen wax na ko ci 13 yi Amadou Ba posé na ay actes yu pour wàññi njëg yi jusqu'à présent donc ñoom ci seen démarche li ñu gis démb ci déclaration premier ministre jàpp nañ ni bon si c'est le premier ministre si déclaration premier ministre c'est normal mu def déclaration boobu mais ba muy nekk om politique démb ak barke démb nekk campagne électorale waxuloon loolu askanu Sénégal maanaam mun nañ ko jàppee su nekkee dañuy wax politique que ñoom dañoo nax sénégalais yi pour falu parce que jaayuñu woon loolu askanu Sénégal leneen lañu jaayoon askanu Sénégal dañu jaayoon askanu Sénégal ne suñu faloo ci diggante ñaari weer dund bi dina fi wàññeeku. luwaas bi dina fi wàññeeku leneen ak leneen dina fi wàññeeku ñu ñëw démb réalité dab leen mu sol casquette premier ministre tamit xam réalité yi taxaw ne na sénégalais yi d'ici deux ans dinañ sentir seen bopp ci guur gi d'accord man nag le contraire laa jàppoon deux ans yooyu deux mois laa ko tegoon. d'accord parce que deux mois lañ ñu jaayoon ba ñu nekk opposition.